'yan uwana mutanen senegal gaba ɗaya da muryar mutanen najeriya gaba ɗaya assalamu alaikum wa ta'ala wa barkatuhu wannan gidan rediyo mai albarka ko gidan da gidan tv mai albarka muna yi wa kowa hani ibrahima laha hilaluhu hilalun badalin nazuri na jamaluhu hilaalu rabiin fiihi jaa muhammadun fa tamma lana wa amma nawaluhu yan kowa ya alhamdulillahi rabbil alamin ku ƙara cewa alhamdulillahi rabbil alamin duk wanda ya tsinci gari ya ga kansa a cikin masoya maulanmu shehu ibrahim inyas wai hausawa cina cewa ruwa sha ko guzuri ya ƙara in akwai ruwa guzuri ya isa maulama shi ibrahim inyas shine wanda idan ka samu mutum yana son to kar ka tambaye shi ya soyayyarsa da annabi muhammadu take maulama shi ibrahim inyas shine idan ka samu wanda yake son kar ka tambaye shi ya soyayyar maulama shehu shehu ibrahim inyas shine turawa suke ce masa 3 in 1 banyas tubabin yin koy oye three in one maanaam soo ko gisee dëgg-dëgg fa in walaw sawiru nii da za ku yi min hoto hakikatan to ba ni za ku gani ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ku gani to duk wanda yake tare da maulana shehu ibrahim yas yana tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tare da shehu tijani yana tare da maulana shehu ibrahim yas waji lumma laton bunja kabilan la cheikh bi lu ma njëkk laaj lan laa pour ma xam ban tàmbale ci tont bi ah laajte nga lu rëy gidan wannan gidan tibin yana tambaya ta menene alakar mu da maulan mu ibrahim inyas kaga ya tambayi babban abu kamar an tambayi bawa menene alakar ka alakar da mahalicinka saboda alakar mu da maulan mu ibrahim inyas alaka ce ilahiya muhammadiya duk wanda zai yi karatu in a ƙasarmu yake a najeriya yake ba shi da malamai na ƙur'ani a garin kano kaduna zaria gusau zamfara sokoto katsina duk waɗannan manya-manyan garuruwan duk wanda zai karanta fatiha zuwa ƙarshe za a koyar da shi fatihatul kitabi to babu inda zai yi karatun nan sai a hannun almajiran maulamu shehu ibrahim yas su ne gidan ƙur'ani idan mutum zai karanta hadisi in a najeriya yake kowa ya san wannan in dai a najeriya yake zai karanta hadisi babu inda zai karatun nan sai a hannun almajiran maulan mushe ibrahim yas to ashe kaga in aka tambaye mu alakar mu da maulan mushe ibrahim yas alaka ce wadda bamu san qur'ani ba bamu iya karanta qur'ani ba sai ta hannun almajiransa idan hadisi ne ba mu san ya za a mu karanta hadisi menene hadisi ya girman hadisi ya girman wanda ake karanta maganganun nasa sallallahu alaihi wasallam sai sai ta hannun almajiran maulana shehu ibrahim yas to alaƙa mu da maulana shehu ibrahim yas alaƙa ce ilahiya na'am deuxième deuxième question bi mooy non dama bëgg dégg question bi waaw al suñu alaƙa suñu diggante ak suñu waaji borom baax bi borom xol bi yaatu bi maulana shehu muhammadul amin ibrahim yas wakilu da adin to still day we are still in the same answer maulana shehu lamin radiyallahu ta'ala anhu shine murabbinmu haƙiƙatan ilman wa jasadan wa ruhan shine tsariƙatan shine wanda idan kogi ya bayar to dole mutum baya zuwa bakin gogi ya ɗebi ruwa ya sha sai ya tafi da tulu ko ƙwarya ko kofi to maulan mu shehu amin in yas radiyallahu ta'ala anhu bayan baharin ya bayar maulamu shehu muhammadu amin shine wanda yake ɗibowa yake kwankwada wa kowa gwargwadon sairinsa gwargwadon soyayyarsa gwargwadon madadinsa saboda haka shine kofar ta halara shine igiyar ta isa shine madogaran na jinginawa a cikin hadaran maulanmu shehu ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu na'am moy troisième question bi moy lan voilà ñu ko tax jug daal nest abinda ya kawo mu Sénégal shine samun madadin maulanmu Shehu Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu ta hannun ɗansa wakilu da adin maulanmu Shehu Muhammadu Amin Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu kuma alhamdulillahi rabbil alamin ya'in Shehu Ibrahim duka abu ɗaya ne duk duk ya'in Shehu Ibrahim duka abu ɗaya a duk inda Allah ya aje to ba kai ka zaɓa ba allah ne zaɓe ka ce a nan gidan za ka sha madadi a nan za ka zauna saboda haka muna faɗa wa 'yan duk inda suke hasatan najeriya mu da muka fito daga najeriya 'yan najeriya duk inda allah ya aje kai ce a gidan dan ibrahim wani kake to kai iya ƙoƙarinka kai iya ƙoƙarinka ka sha iya abin da za ka sha abin da ka sha shi za ka iya shayarwa a zawuyarka shi za ka iya shayarwa 'ya'yanka da iyalanka way olofu njaay eh? nee na maanaam kër sëriñ ay gétt lañ lu lu waay hmm, rot hmm, moom moom lay moom lay joxe moom lay nampal ay doomam maanaam gidan shehi kowane irin shehi ne kowane irin morabi ne to gidansa ka kaddara gidan kamar garke ne duk abin da mutum ya tatsa a garke duk abin da mutum ya tatsa a garke to shi zai shayar da 'ya'yansa saboda haka gidan shehinka nan ne inda za je ka tatso albarka kuma muna ba wa shawara duk wanda ya bar mahaifinsa ya bar mahaifiya ya bar iyalai ya zo neman albarka to ya da gaske ya duk iyayen da zai yi eh, albarkatu tushtara manishtara hasayara malamu shehu haruna rashid radiyallahu ta'ala anhu baban mahi yana cewa albarka siyanta ake duk kuma wanda ya siya zai same hakan ya tabbatar mana da maganar maulamu shehu ibrahim ya radiyallahu ta'ala ana yake yana cewa ita albarka duk abinda Allah ya wa albarka a bayyane yake din abinda Allah bai yi masa albarka ba cikin hikimar salayi su alu amma ya fa'ala a bayyane yake maulamu shehu ibrahim ya a cikin tafsirin sa na walfu yana cewa ku duba sa rago akuya Allah ya zuba musu albarka idan kai estimating da yadda ake yanka su a maulidi a suna a haihuwa da masu balangu da masu tsire ya kamata a ce kare amma saboda Allah ya zuba musu albarka haka ya so la yasu fa'al har yanzu cin ake basu kare ba ku duba kuma kare mage ko je mage irin yadda suke haihuwa da yake haka Allah ya ga dama ya cire albarka a cikinsu ba dan sun laifi ba ya zuba wasa da akuya albarka ba dan sun yi wani abu ba haka ya ga dama jalla sha'anuhu la yas'alu amma yaf'al ko inda ake ko inda ake cin kare zai wahala ka ka ga garken kare kare na haihuwar guda biyar guda shida guda goma amma kuma ba a ci sosai amma yana ina jemage yana haihuwa da yawa amma ba a ci yana ina alade yana haihuwa da yawa ba a cinsa sosai amma suna ina saboda Allah haka ya ga dama ya cire musu albarka haka ya ga dama babu yanda za a ba a cin da yawa kuma ba a ganin a ko ina amma jibi tinkiya a tara take haihuwa saniya so ɗaya a shekara ko amma da yake raƙumi da yake Allah ya zuba musu albarka haka ya ga dama jalla sha'anuhu cin su ake yankawa ake amfani ake da amma kullum akwai hanyoyin da in kai ka ga wani garken sai ka ce ba a cin saboda zalla albarka da Allah ya zuba so muna bawa yan uwanmu Hausawa da Yarabawa da Nufawa da Inyamurai da duk yarurruka da Fulani wanda suke zuwa neman albarka gidajen shehunai 'ya'yan shehu Ibrahim da mukaddamai muna masu ba su shawara cewa su da gaske albarka ba a samunta da wayo albarka ba a samunta da kayakaya albarka ba a samun da laɓe-laɓe fitowa ake a neme da gaske sai a same da gaske olafin jayi ne na bufor yombe sagu jafe duk lokacin da aka ce za a yi ta zama a kowa zai tsinta to za ga a wannan lokacin kuma ka tsuguna ka ɗauka allah ya sa abin ya zama wahala saboda haka mu gode Allah da Allah ya sa muna daga cikin araye muna daga cikin waɗanda za ga 'ya'yan maulan mu Shehu Ibrahim Yes maulama shehu abdulad allah ƙara masa lafiya da nisan kwana yana cewa wata rana zamani zai za a wayi gari wane ne ya taɓa ganin ɗan shehu ibrahim in sai an rasa kaɗan akhiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin shehu muhammadu amin muna fata allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana kasatan duka 'ya'yan maulama shehu ibrahim duk inda suke allah ya san muradansu akan kansu akan 'ya'ya akan jikokin akan zawuyoyi allah ya cika musu shehu ibrahim yas albarkacin maulamu shehu tijani albarkacin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin